al Ittihad Falakhen al Nasser euh, bii nga xam ne ñancoo international euh, moom lay football match ba euh, mi ngi doon am daanaka bi 17 heures jotee maanaam juróomi waxtu daanaka la match boobee commencé match ba nag taamoor ya moo bari moo tax mu yeex a jeex waaye Sadio Mané bokk na ci ñi football match boobee ba mu jeex ba ñu toftalal leen lu toll ci fukki minute ak ñeent séngam waaye gone Sadio Mané donte Cristiano Ronaldo footballul ci match boobe waaye jàmbaar ji góorgóorlu na mi camp yi ah, dañ ko koo defal benn retrait mu traité ko ci biir camp yi mu ni sabax ci biir benn bal ci dara la équipe bi li nga xam ne mooy Al Nassr mane woon ci li nga mooy première mi-temps bi bi boo xam ne day wane ni ah, bu njëkk fële ci Arabie Saoudi yoon wi nga xam ne moom lañ ko jënde woon jële ko fële ca Bayern Munich pour mu ñëw ah, doxal ngéwal wala Espagne foofee nga xam ne mooy Arabie Saoudi yoon woowee ma nga ca ndax match yi football yëpp daanaka match yu mu ci mën doon taxawaay ba nga xam ne dana ko am taxawaay boobee moom la ñëpp yi jonge tey jii nag taxawaay bi mu am mu gën a neex donte am na nopp defet ndax moom moomee dafa yanu équipe bi ginnaaw Cristiano Ronaldo coup franc yi ak lu jëm ci wàllu corner yi loo xam ne jëm na ci match boo xam ne am meneur de jeu mi koy doxal moom ñancoo international ma nga ca woon di football attaquant di football milieu terrain waaye tamit moom lay football te lépp loo xam ne mi ngi koy fayeeku ci wàllu million d'euros di alal jooju muy fayeeku foofee ci Arabie Saoudi alal joojee sama waa ji bëgg na mu leew domm ndax moom moo tax ah, daanaka muy dugg ci biir terrain bi di tegal gars yi alxatir match bi nag dóor nañ leen ñaari bal ci benn ñi nga xam ne daanaka ñu ànd ak Ederson fële nga xam ne ah, ñoo bokkoon nekk fële ci Liverpool ñoom ñoo ne tamit daanaka ñoo ñëw ah, sonal équipe bii di Sadio maane ak ñi mu àndal équipe boobee nag daanaka doon jàmbaar foofee ca championnat saoudien yi waaye yeneen match yi di ñëw match yooyee bii di Al Nassr fekk Cristiano Ronaldo ñëw Diodo Sok ñëw Sadio Mané ak kii di Cristiano Ronaldo bu ko defee gars yi mën a dàbbar ñëwaat lu leer yeneen information ci kanam